ci coowal Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi kii di président Ousmane Sonko ba muy dem tribunal ngir teew procès boobee dasee jàppante woon moom ak ay takk der si li mel kii di président Ousmane Sonko tojoon nañ vitre otoom bi pompé woon nañ ko benn substance ba noppi récupéré ko par la force daal di koy yóbbu ci procès boobee ginnaaw bu procès boobee jeexee kii di président Ousmane Sonko hôpital le principal la teeree ji woon si li mel tamit kii di président Sonko ne takk der yooyee jëlee ko woon ci otom bi par la force dañoo amaloon ci kawam liñ dippee tentative d'assassinat takk der yim ji ñoo ñi ni mel nag ñoo ñee ba ñuy amal seen enquête ñoo jàppoon ne kii di yarga si daal di koy tëj ci kaso bi ne kookee ci wàllu boppam moo bëggoon a jël bakkanu kii di président Ousmane Sonko si li ni mel kii di président Ousmane Sonko génnoon na daal di xamal sénégalais yi que ne kii di yarga si du gàddu kooram kese yem si waaye kookee doomu ndeyam la ndax ne kii di yarga si bu fekkoon moom ñu war a jël bakkanam moom mii di président Ousmane Sonko boo moytuwul Yarga Sy dina fa bàyyi bakkanam donc nañ ko bàyyi mu daal di ñibbi waaye li ni mel ñu jàpp kii di Yarga Sy daal di ko tëj ci kaso bi depuis mois de mars bi ñu génn waaye nag kii di Yarga Sy tey ginnaaw ba mu jàkkaarloo gis bu ko doon àtte daal dina koy relaxé moom ak 20 patriotes yi nga xam ne ne ñoom lañ jàppandoo woon ci mois de mars bi ñu génn waaye ñooñee dañ leen naa jàpp ci ay motifs yu ñoom ñëpp lañ mujj relaxé daal di leen di bàyyi ñu dem ñibbi. abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di xibaar.